duñ fekk yaa nga ca ah. ndaysaan deuxième la soirée Baldé Tapha Leer loo Karim alam ak sos ngeen préparé loo Karim benn loo Karim benn yoon loo deuxième combat la ñaari yoon Tapha siñoor Junior waaw waaw Tapha Leer Junior moo yor ngam lu vert li Tapha Leer Junior moo ñu wan ginnaaw Bébé Diéli moo moom lañ jàkkaar lool lii mooy deuxième combat bi ci Assane Ndiaye Baol production tey la samedi tey la dimanche 2024 le 24 octobre 2021 man sax nee naa 2024 waaye 2021 lañ ne xanaa kay danoo nekk le 24 octobre dafa leer junior bébé Jali Balde ñaareelu eh ñu ngay dóorante jàpp na ko solante solante solante solante ca kaw Mathiaye arbitré lum ko bëgg a def Bébé Djelimor ngemb lu vert li gos ñaari mbër yaa nga ca jàppoo ba tar de ci biir i mbokkam lañ ko delloo njukkal waaw daa gën a wóor de mbaax day boo koy njëkkee say mbokk dina am importance ndax nag baax ci biti baax na lool waaye balaa génn ci biti moom ña nga bokkal gis ci seen bopp Matar maa ngi lay bégee Matar Diouf arbitre tey mooy nekk arbitre mooy mooy arbitre de tous noo arbitre arbitre combat bi macha allah Mathiaye arbitre du combat bi Mataaray arbitre de tous bi Mataaray dafa leer leeralagul dara. Léopold Grégory ay waay booy bëre leen waay yëkkati zongule tel teq ca biir mu bañ mu sokku ko daan na ko oh bébé jëli tafaaleer jëli bu rëy rëy rëy xool ma tafaaleer tafaaleer waaru na tafaaleer mu jën a waaru da koo a bett na ko waaye rëy de rëy de ah bu yeboo xam leen di wax de moo xam lu muy wax waa koñ bi waaye daan nañ ko de xanaa muñ rek muñ rek dañ koo boot muy duggee ginnaaw ee eh, ginnaaw lay duggee dañu ko boot muy duggee ginnaaw Lamine Golo ngoongu ngay séen ak mbës Fils de Balla dañu ko boot muy duggee ginnaaw duggee ginnaaw Baldé mu nga sol benn koppati yoram caxat ca kaw yaram wa Fils de Balla tey ginnaaw lay duggee lu doy waar lu doye doy waar Baldé Baldé lu doy waar Fils de Balla ginnaaw lay duggee ànd ak Youssou Ndour bu Balla Gaye école Balla Gaye ñoo ko andi am koppati la soldi la mu takk bari na Fils de Balla laa ilaaha layu ay layu fii yaa bokk layu ak ndox ee làmba ngi école de Balla Gaye ñëw nañu duggee dañ ko boot mu arrière ana dub laa ilaha illallah cey bi combat Aïcha Assane aatu bëgg ki loo ne naka yëngu xanaa sant ak muñ aatu koy bëreel tey yaay bëre spécial bi de loolu la ñëpp wax may bëre may daan incha allah rabi waaw. xam nga sa adversaire bu baax. bu baax a baax a baax. waaw man day gaaw wala. non mën na gaaw mën a yéex dañuy lamb rek mais incha allah may daan soobee yàlla. ba ci kanam jaajëf. koo koy aatu na mooy daan Balde. Balde ab ñaxu salguuf xam nga ko salguuf la tee noonu am ñaxam salguuf akum caxat ca suuf cay làmb lépp nga ciy gis waaye lépp fii lañ koy wëree nag Sénégal gii ay salguuf ay caxat ay pafton lépp ay am ci biir ndaysaan cey làmb supporters yi kenn mënu leen a fay Léopold dóor na la féete droite Zos bu jam ñaajo Léopold xeex ñu ngay xeex daw na jor ñu ngay xeex de daw na jëli ko waaye Léopold mii Léopold mii Zos koy dóor Zos dóor na ko de Zos génne na ko génne bu tar waay génne waaw génne na ko de génne na ko de ku ko dóor mu génn ndeysaan ñaari mbër yaa nga ca daw na jëli ko Léopold na ko daan na ko jël ba rëy na oh xoolal xoolal waa kër Léopold yi oh jël ba mu ko daan rëy na jël ba mu daan sos rëy na daa taw tibb ko xar ko oh. moom monsieur béykat yi loolu bu yaraax moo féete à gauche benn tañu écrit Tivaouane Peulh Ladoum nag am xar la Benteñe moom garab la arbitre soufflé na laadum moo féete à gauche laadum ngi moo féete gauche nge mboolu ñuul Benteñe à droite Tivaouane Peulh la jóge moom Benteñe laadum turu xar mu baax a baax la Benteñe itam garab gu nganda ngan la calanju yaa ñete ëpp këll xeex nañu xeex jàppoo dóor quatrième combat la mu jàpp dagg jàppante laa amatul fu mu jàpp Benteñe jàpp na dina la moytul caxabal na ko tànn ko oh ay waay Benteñe waay mbërëm ngel jonn ma Benteñe daan na jël bu rëy xëcc caxabal mu ngay julli ben teñe daan na ñaak saara ko andi ñaaka ko andi ko koy ben moom akab layu

ak Boy Diouf arbitre soufflé na Boy Diouf à droite Ngale Dieyla à gauche Leewtoo cinquième combat de la soirée eh door na ko Ngale Dieyla daan nañ ko oh ay waay Boy Diouf waay oh Boy Diouf Boy Diouf Boy Diouf Boy Diouf Balde kaay kaay kaay kaay Balde kaay. waaw mais Boy Diouf. mais mbar li nga. du man xaw ma dara mënu dara. gars yi may jàngal rek. Kolobane Mbolo ñoo may rek. Kolobane Mbolo. noo ko daane xaw ma loxo la xaw. non la sant rek non dama ko dama ko dama ko dama ko mbos waaw. waaw waaw dama ko mbos. non ñii ñoo may ñoom ñoom ñoom ñii ay tonnerre anti ay kii ñoom ñëpp ñoom ay jàngal bëre. bi mooy sa ñaata combat bi mooy sama quatrième combat. ñaata victoire waaw quatre. foo dëkk yow bawal bawal nga Saalum. Fatou laa dëkk. Fatou mel ni Fatou mel waaw. yàgg yàgg naa laa xam mais xamuma. ñu daje ci mbabat yi mais yow si bëggoo. après après ngay comprendre nag. nag sib naa moom. waaw non après ngay comprendre. sib tey. maa ngi lay bé. mooy jiw fañ yaatu. mais wóoy ma ñun dañoo dañoo war a toog waxtaan nag ñun loolu loolu la ñu war a def. barki alxuraan arène nationale laa la fekk comprendre ma barki alxuraan mais wan nga ma ma comprendre lépp di sant waa Touba Toul bool gépp maa ngi leen di sant aw ma seen fay waa Grand Dakar bentali ñaatali aw ma fay maa ngi leen di sant bu baax a baax gars yi jàpp ci sama combat bi nii aw ma seen fay ñii dañuy taxaw guddeeg bëccëg suba ak ngoon barke maam Serap Fall lii jaaxaluñu lii nii Serap Fall nga ne lii jaaxaluñu moom xam na ne lii jaaxaluñu ci moom laa xool ko mook menacé bi mook sawru fall booy juuf ak sawru fall oh pop pop pop pop xëppante gàllaaj bi ci géew bi balde xëppante gàllaaj bi xëpp ndaysaan baga général malika ngongu laa ilaha illallah général malika ay doog a dugg si noonu momo ngi sama liir bu ndaw du bëree. kat maa ngi lay. waaw delloo si àll ba. ci bi. tey nu ngeen waa dal ak teer ak yar bu baax a baax. général lu koy daan tey. xeex. waaw. ay pour mu bëre fii pour mu bëre ko pare doo koy bëre waaw. am solo yaa ngi waaj. pare naa fépp. waaw jaajëf. jëlal jëlal général Malika eh général Malika dugg si na général dugg si l'homme de la vérité. kaa ñu dem ci tey di wax naa ne la vérité. waaye laa ma jaxasoo na waay Junior neexoon nañu internet danga koy faq internet daanu nga internet daanu nga de internet daanu nga bu yàgga a yàgg internet daanu na xool sa kanam gi xool ma kanamu internet gi internet daanu na bu yàgg daa yàkkamti combat bi ah way tegul bi ci yoon tegoo combat bi ci yoon xool ko tegu ko ci yoon mbër koy respecté ah daanu na bu yàgg dama kaa mën dama xamul nag dama xamul dama xeeb man ci keppaaru mare Pape Thiam ay ñoom aatu atrum ma su ñoom laa yeroo parce que su ma mënul bëre dama tooñ barke seen Bamba maa xamul maa ko bu doole waxoon naa ko signature ba nag

Moussa Moussa Bamba Fall dañ ko song wala lu xew nii waay Bamba Fall waay meeru Medina bi waay daa jekk rek bas wax na dëgg ko singa jag yalla ma yaan ko faye jaga salaan ma yim wi na ceere Jaga salaan ma yiwi na cerere. Salaan mu mani ko. Bravo. ay dëgg lii Babacar borom Kaolack Assane Ndiaye lu mu nar eh Assane Ndiaye Assane Ndiaye lu mu bëgg ay Baol production Babacar séeréer saa nga jooy eh ñëpp a jooy mu man mi yow da man jooy na ñëpp a jooy Madou Diouf jooy jooy oh Fadel ngay jooy eh waay Fadel Babacar Babacar lii laa bu doog lii laa bu doog ko nan ko fonk mooy suñu culture moom la ñu waaye way wii dana yëg a gën a man nay wii way Ndeye Fadel cey Ndeye waaye cey buur buur cey maire bi tafay cey maire bi tafay maire bi a a nga ca de dina ko faq faq faq bët bu niwi oh Ardo Ardo eh eh eh oh Ardo ah ah ah doy na waar de ah tëdd na de Ardo. ndeysaan loo karim abib maalaw ñaari mbër yaa nga ca de daw na jëli ko jël baaxul boobu jël baaxul kor kanam yu naaj mbaar du caamaatu yoon ma ardu du ci amaatu yoon ma ardu du ci amaataw yoon mu ngay dóor de ndengeñ ba sax na oh oh bët ba gaañu gaañu bi metti na de parce que boo xoolee Habib Malaw waaw toppal ma ko toppal ma ak son bi luy xew away ah loo Karim gañe na ko daa blessé ndeysaan dafa blessé oh damal faju ji te muñ aatu Signor ak Laye Brisli Laye Brisli moo nekk nii Balde Laye Brisli la ak aatu siñoor laa ilaha illallah ñu ngay sangoo xool loolu béjjën la Balde kooku béjjënub kooba la dañ koy sox am bagage yu ñu ci def moom la ñu samp noonu ci géew bi wallaay takkab dugub la yenu xam nga sëqab dugub mbër mii di ñëw xoolal laay bis li mu yenu dugub la dugub dugub a ngi nii loolu mooy sëqab dugub sëqab dugub la yenu doon di daw ak moom Baldé a nekk ci mais président ci loo waaye sama doomu ndey alaaji Babacar alaaji Pape Abdou Fall namm naa la si ta Papa Sow borom Equivox mën a ñàkk loolu la yàlla dogal nangu ko rek. ma am nga jàmm. dolli sant yàlla bu wér di sant yàlla bu wér di sant wéyjur yi di sant Cheikh na Cheikh Sadbu di sant njaboot bi. mu mel ni da làq woon depuis boobu ba tey kenn gis la kenn déggu la mais tey da ngaa feeñ ci beneen façon tey. <laughs> mais ci ban façon laa feeñ. non xam nga man euh, bu ma génnee rek damaa war a génn bu ma du ma génn déedéet génn jot na jot na Papa le cinq décembre bu neexee yàlla dañuy sabablu nag waaye nag nañ jël lépp delloo ko ci siraatal mustaqim ci borom bi nga ni mooy kun fa yëkkun lu mu namm rek mooy am dañ koy ñaan mu kàttanal ñu ñu ngi nas ñu ngi sabablu yàlla na mottali. yàlla ko yàlla mottali. dana ko def. réew mi koy xaar ba bu mani en route vers le 5 décembre. Ah. zéro. zéro espace arène nationale. zéro espace arène nationale. mooy place bu nit di toog du fa am. incha allah rabbi noonu lay. yal na ko parcelle parcelle pare na tarkindaa yi pare na. yal na ko yàlla def yal na ci cheikh na cheikh Saad bu jàpp xertu shérif uldu maamin uldu xiyaar yal na yàlla mottali jaajëf. ndeysaan. cey bii combat Mathia ngi xaar avant grand combat Atou Signor école de Libada Dione laay bris li Kër Mbay Fall laaya féete gauche droite Atou gauche Atou ñuul laaya xees ñu ngay lewaatoo nday faatoo ngay way nday faatoo ngay way nday faatoo ngay way esaan way bi dara xewagul de ñaari mbër nga ca Laye Bruce le Atou Senior Laye Bruce le Atou dara xewagul de cey làmb jàppoo dóor xeex in deux fu ngeen jëm kaay leen ci géew bi kaay leen ci géew bi ñu ngi ca côté saaku ya dañoo bëgg a bëre lang in deux laay bris li mi mën naa xeex daa mel ni de billaay laay bris li mi ab xeexat la may nurool daw na jële aatu aatu tëru na ko laay brise li mii baax na mu ngay door aatu inte mu ngi koy rokkos aatu nañ la door nga daanu door na ko mu daanu hohoho hey laay li waay laay brise li waay door na ko door yu méttee métti daan ko jël bu rëy kenn du laay brise li dama ya mama bisa agi jomna ya ga jakir e. an umi bira refta e adama ya mama bisa agi jomna ya ga jakir an umi bira refta e adama ya mama bisa agi jomna ya ga jakir an umi bira refta e Dias ña nga fa di la nuyu di gërëm ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yaa ngi koy def nga taxaw ak sa rak waaw borom Ndiaye production mu mel ni yéen ñëpp benn ngeen hmm. non Fallou ñoo bokk ndey ñoo bokk baay parce que nit la koo xam ne dama xam jàmm ji ma yéene ma yéene ko ju ko raw ba pare muy nit ku yaru yàlla gis nga lim ñu defal boole waat ñu bis encore ni ma ni ma sii di maa ngi ci capital bi nekk muy Thiès muy en 31 bii di ñëw ñu war a def ñaari journée yu am solo chaque fois moo ma nekkee télé wala rajo yi maa ngi wax ci journée am moom fu mu nekkee télé wala rajo yi ñu ngi wax ci sama journée. donc dimanche bi di ñëw le 31 octobre may wax nit ñi kat maa ngi leen invité ñu ne ci région yi invité naa leen à Thiès pour ñu ñëw ci gala bi nga xam ne mooy drapeau de Thiès waa ñu jagleel ko Maodo Malick Mbaye mu nekk bis boo xam ne diggante Ousmane Gandigal moom mi nga xam ne dafa lëmbe Thiès xam nga dara war a daje alaaji gaynde alaaji gaynde ni ko man doo sama champion loolu ñu war ko def ci diggante encore ki nga xam ne mooy jëm téeri numéro 2 bi nekk mbi moom tamit mu war a bëre ak ki nga xam ne mooy jël dem bu teset buñ ci bëree Fallou Mbaye bi nekk Thiès Medina Fall war a daje aussi ak mbul bu tuwaawan ak yeneen sept combats yu tubokkaat vraiment kontaan nañ trop ko drapeau Maodo Malick Mbaye sëñ Fallou maa lay bëgg Babacar ñu ngi lay fay li la jàmm bu sa tonton sa nijaay sa papa sa lépp. waa day sama père la taxawal sama président ndax moom ñaar la ci man day sama papa bay sama président kon yaakaar naa cër bi buñ ko war a jox la te dañ ko koy jox ba mat ndax kii idole la ci ñun ndax ñoom lañ fekk ci làmb ba ba ñu ñimee pour ñëw ci làmb kon tey dañ koy déglu rek ay conseil am comme ni mu ko waxee rek moom dafa yéene ñëpp jàmm ba pare bëgg jàmm wóor na yàlla di ñu di meku see xaw ñun ay teraanga bu ñu demee làmbam Thiès teraanga junne la ñuy defal di ñu sargal teg ñu ci kaw te su ko neexoon mu ne ay promoteur kese lañ mais defu ko dañuy teg ca kaw kaw kon moom suñu papa rek la mën a doon te it cëróob lañ koy jox di ko ñaanal la 31 bi Thiès mu am régional date bu mas a am Thiès na ko bii dàq ci kàttanu yàlla di ko ñaanal suñu bopp fii Dakar moom suñu père la suñu lépp la daal dafa am mbër Ada Fass waaw dafa am mbër Ada Fass la 31 incha allah Babacar Fallou Fallou li ngay boolee doy waar waaw doy na waa moo tax Babacar isant yi bii jeex na wër na yàlla barke sëñ Touba la 31 billet yi jeex na tàkk man yootuma benn billet kon yaakaar naa fi moom ku fi ñëw doo am billet na nit ñi dala ñëw. Assane Ndiaye dama koy wax mu naan mooy borom Ibamar Diop. non le 31 lay xam ne du boobu Ibamar le 31 lay Assane di xam ne Ibamar daa am borom. <laughs> waaw. yéen ñaar lan mooy seen secret. non ma ne Babacar baal boobu duma ko ba pare. loolu laa wax lu suñu secret. mais bàyyi ma ak moom rek le 31 moom fii dinaa ko won ne maay borom. waaw mais Fallou beneen bi ci des. Euh, boo xoolee ki nga xam ne nii xale bële xale bu mën a fecc bi te mu nekk Mor Kankan ak boo yëmbal waa mais xam nga ñun dañuy xalaat nag dañuy roy suñu papa Sidir boo gisee ni mi def Thiès yu mel noonu rek lañuy def dakaar dañuy ñëw xool xale yi nga xamante ni ñoo méngoo ak jamono mu soxla leen ñoo andi leen bu ñu jógee dañu ni Hercule Baye ma Ndiaye deux ak euh, euh, kii armée bu ngéwél muy combat yoo xam ne ñetti grand combat la ñu teg ci espoir yoo xamante ne ñoom donc feesal na Iba drapeau so technique drapeau so technique drapeau Pamdour drapeau suñu yaay saltige bu mag yaakaar naa daal 31 dinañ dina yëngu de dina yëngu ambiance bi nu muy demee non ambiance bi moom non non ambiance bi moom duñ ci waxagut duñ ci wax benn affaire la woyu ma balaa dem daam lu ma ko bëgg a laaj xam nga tey des fois lamb ji daa ubbi rent Dakar tëgg mu neex Assane ki tëgg tey mu neex du nga war a ñëw si di war a ñëw Thiès Dakar te kaa yaa ngi xalaat lu supérieur loolu kon daal il faut ngeen wax ma ci côté maanaam yëngu bi yëngu bi tey parce que yëngu tey bi daa neex daa Fallou Ndiaye. Babacar lamb la 31 ubbi bu neexee yàlla foofu laa mën a yem loolu maa la ko wax te yaa ñëwaat ne ma lamb ubbi na yaa may ñëwaat ne ma lii lan la. kontaan. day copier coller 31 lamb bi. le 31 la ñu xam ne maay borom fii maay borom fii le 31 ah moom fii maa moom fii mu dara. sept ans yow yaa ma gën a bëgg yow xam nga. waaw ah, non ah, parce que lamb bu neex ma kontaan. waaw lamb moo lamb mooy gagné. sant yàlla bu baax nag gërëm amateurs yi saa bu ma wooyee ñu ñëw ndax wër na ne bu ñëwee naa leen jox lu neex lu saf lu baax lu leer. stade bi daa fees ba gars amatuñ fuñ toog. waaw lool li ma may jàmm sax mooy mbëri supporters yi daanu di ñibbiwaat looloo ma gën may jàmm mais alhamdulilah sant yàlla. Fallou Ndiaye nee na dimanche la làmb di ubbi. waaw non kooku day ruube rek mais xam na ne man maay magam loolu xam na ko. yaay magam xam na lool secret yi maa ko koy jox. yaa koy jox secret. lu leer. kon ba dimanche xanaa gisoo xam nga xam affaire yi maa ngi ci def ay ay ay affaire nit ñi. programme mu dimanche. waa gis nga. loolu dëggul baaxul. non non du la jël kii mooy Abdou Aziz Diop Mamour Sène Sela Babacar Diop a ngi Abdou Abdou euh, Amadou Mbaye lépp les amateurs tey defe naa kontaan ngeen de bu ngeen gisee lamb mel nii. waaw bien sûr Assane moom il est habitué des faits Assane moom euh, tàmbali lii vraiment bu ñëwee fii ba mar rek jox ñu li ñu bëgg waaw lamb neex na am na animation. fees na del bëre combat yi neex na waaw. turandoo maa ngi lay ziar Babacar. waaw ñu ngi lay delloo ziar ñu ngi tamit yaa ngi toog di assister ban ba ci ban ta ndoom nga toogee fii. bon man maay euh, yor commission centrale des arbitres ci wàllu lutte avec frappe donc loolu moo moo tax ma toog fii tey di xool daal. waaw di xool di superviser sama euh, arbitre yi. ni ñuy doxalee waaw. ni nga gisagu dal dal sa xel. waaw euh, actuellement euh, ñu ngi sant yàlla parce que euh, ñu ngi officier officier bu dal et puis ñu ngi def luy yoon waaw am na solo way Yawou Dial ma may ko coow animation yaa Yawou Dial la woon. waa CNC ngi nii bu dee ma génnee si lamb dama see bokk. booy yi àgguñu ma ca tuwee. booy bu ñu nee tur si lim di sori. man su ma nee tur mën naa nii ba fàtte ñu ma daan daf ma neex nii ma bàyyi si biir waaye bokk ba ñoom 2004 ku def si lamb ñaata kaaw laa fi am ku bëgg a bañ yaawu rek rek xam ne yaawu jaar du nooy neexu gaañ te su fekkoon ma nekkoon tey nooy neex dañu ne jox la ma yaaw ma jaar comme jàll mais caay-caay ba si yaawu jaar moo tax mbëri dañu ma nangoo laal barke sëñ Bamba moo jógee waalo teg sok jóge benn baraak mbooloo daw na jóor yi mu dajeek moom dóor dóor dóor na ko mu daw jëli faat na ko ñaari mbër yaa nga ca ñaari mbër yaa nga cere takk wañ takk wañ mu bañ ràcc nañu mooti daan ho ho ho ee eh. ay waay ay waay ay waay teg sok daan na saa jaxaay jëli bu rëy da koo takk wañ ko da koo takk wañ ko xoolal ma saa jaxaay saa jaxaay a ngay kay kay kay waa mais pour sa pour yaram bi daa tàng sama yaram a tàng gars yi duñu dara dañu ma leen jox ma lem leen barke Serigne Touba soq daa wàcce nga wàcce. bu ma defal ko bagage. barke yonent bi. mais booy. waaw gaa ma yow. mais teg soq. waaw teg soq la waaw. mais teg soq ni nga daane waa ji doy na waar de. waaw waaw faa doy waar. parce que ñun làmb dafa nekk suñu deret dafa nekk suñu suñu yaram. waa benn bras ñoo ñu tàggat daf ñun lu kon ñun bëre moo war a yaram te dafa am fu ñu teg suñu foofu la ñu bëgg a àgg incha allah. ci ñaata combat. waaw maa ngi cinq combat. ñaata victoire. quatre victoire ma ku ma booleel moo bëre. waa benn baraak. waa benn fa. gis nga lii benn Malika. Lac waa Fanook fii Medina laa juddoo kon fi juddoo yaroo yi teew def sumu jumbi ragal ragal daf fi juddoo rafet na. jàmm maa ngi sant Serigne Touba ana waa gay yaay a ngi si jàmm baay mu boo tëggee gaa yëngu ah saa yoo tëggee gaa yëngu waaw loolu yàlla la rek ndax ñun ay ndaw lañ rek mënuñ dara dañuy jàng rek ndaxte lépp paa la rek xam tey doomu Babou Ngom rek doy na adresse moo tax dañ leen di sant di leen gërëm nag di la wax ne ñun amuñ seen fay ndax gis nañ nit ñi taxawoo ci lamb nga ci làmb nga nekk ma yaa ngi ci làmb ji Bombardier démb def na MMA ñàkk loo koy wax. waaw di koy wax ne ko bu gën a góorgóor rek parce que lamb la moom daanu ak daan moo am di ko ñaanal combat bi di ñëw yor na ko yàlla may ndam parce que il n'est pas démérité dañ koy ñaanal moo xam li mu yi di ñëw yàlla may ko su ndam mu gën a góorgóorlu parce que la noonu la sport la c'est la loi du sport. Ah ah. rek mu nga Amérique. yéen a ngi waaj di waaj yu rëy di jox ñëpp rendez-vous nag le 2 janvier ak général Momo ak Reug Reug année lu bees sax di ñaan yàlla may ñu ndam ci guy gi si kattanu yàlla ak barke si Seydina Muhammad jërëjëf yaay booy maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar. nday Fatou Adama Jali. naam. Ngom. waa kay kontaan naa ba. Ngom bi rek nga waroon sensé. sant bi. Joom. a Jooba Juba Mbacco Bacco. Joom. a Joom Joom. sama nijaay Diome la sant dëgg la. mais macha allah saa boo duggee ci làmb boo woyee ñëppay jaxasoo nday Fatou lan la. waaw doon la rek yàlla la ndax loo gis da nga koy liggéey yàlla may la ci nga gëm ko soo ko gëmee di ngay def da koy gëm nit ñi gëmle la looy def te gëmoo ko kenn du la ko gëmle mais li ñuy def. man dama cee fierté gëm ko bëgg ko nit ñi jàppale ma si bi dama ci jàppale moo tax may gën di góorgóorlu. yaay gis nga Equivox. Equivox Equivox. Equivox. Equivox waaw. Equivox waaw. loo may may ci dañuy ñaan yàlla rek mu dem sa kaw ca kanam yal ko yàlla saxal danaa leen fenteel woy bu rëy. dax xam nga man mënu ma woyantu te danaa ko fu woy ba mu dëkk bi yëpp àddina si xam ko bu soobee yàlla ca kaw ca kanam yàlla xiwal. ba ba da koo musóor kaala gu weex ba muy lang cay làmb ngay nit ku pot nag di yëkkat sa teraanga di ko def ndeysaan général Malika waa kii na de waa kii day dox doxu ñaxtu wala lan hee ay làmb ay général e bi combat dina metti lool ñaari mbër yi ku nekk yaakaar nga ne yaa toog ci ndam waaye est-ce que la demee c'est loolu la gars yi way c'est c'est général waaye Fils de Balla ngay fecc rek général a ñu koy sotti cey ji lamb ànd ak booy Malika général Malika waaye de laa fi gis Balde nee na du wax saan ñaari mbër yaa ngoongu taxaw Balde tey le dimanche 24 octobre général Malika fils de Balla ku ci li nga doon jaay tey lay lamb billaay léegi géew bi wéet yéen ñaar kese ngeen des ci drapeau Bamba Fall ngeen di bëre Baldé koy filmé Babacar a koy commenté général à droite moo taxaw à gauche fils de Balla Malika ak Géejo ñaari xale combat bu yaay moom garabam kii boo xoolee ay béjjën la ko booleel ay béjjën yooyu lang ñetti béjjën garab gi nag boo xoolee ñenti bànqaas la am ak benn car bu jëm ca kaw a kaw bu neexee cey général waaye cey làmb waaye cey Duudu Mbay borom RTS Duudu Mbay ak grand sama grand Jibi Mbay magu jiili kookoo ma tette présentation baa ngoog général nay loxoom léegi lay jeex maa ngi nuyu jib seen a jib seen ama solal tey nag borom Petersen Ablaye Gueye yaa ngi may woo ñuy waaj a soufflé combat gaa yaa ngay way Lamine Golo Fils de Balla moo koy tàggat Lamine Golo entraîneur école Balla Gaye mu ngay wax ak mbërëm da koy yet loolu mooy dernière réglage yi yeraange da cee baax général sukkuna général sukkuna am na lu muy naan ca suuf général sukkuna am na lu muy naan de ànd ak Boy Malika cey ji làmb cay ji làmb nday faato Adama Jali jël nag micro ba cey làmb ji Assane Ndiaye Baol production macca wax na ak ñoom Assane a fi woote tey nday Fatou ñëw na Ndiko Diouf na Sidi Diop ñëw na drapeau Bamba Fall ngeen di bëree waaye jib seen patar seen naa ko borom la huit lay fête anniversaire happy birthday to you avertissement général avertissement fils de Balla ku naam nga benn avertissement macca leeral na ko Balde pare nga waaw arbi soufflé na la ilaha illallah yàgga ta Fils de Balla ay waay Babacar waay Fils Balla à droite général à luy xew Fils de Balla sànni na gauche boo xoole général a gën a wàcc ñoom ñaar ku ne pied gauche nga jiital séeréer la pataake fu nuy mujjee fu nuy mujjee luy xew général gëdd na Fils de Balla daw na jëli ko général am koy door Fils de Balla daw na jëli général am koy door général am koy door Fils de Balla ko ndombo Fils de Balla wër ko ndombo mu ngi koy door mu ngi koy door mu ngi koy door général day daanu oh ma woon de lii ci am nii Fils de Balla général jóg na bañ na de trois appuis wër ndombo dóor mu ngi koy dóor Fils de Balla wër na ko di ko dóor eh Balde dóor ya metti na de waaw dóor ya metti na général nee na du daanu général ndax doo daanu général ndax doo daanu général ndax doo daanu fi nga dugg tey baaxul de ay général fiñ la fiñ la tee général fiñ la tee xat na Baldé Fils de Balla mbër mi bi muy ñëw daa décidé te daa bëgg combat bi ñaar ñu am décision ay Assane Ndiaye li nga boole Fils de Balla Fils de Balla ngay wax ak supporter ya Fils de Balla tee nga bëre da koy daan bañ na bañ na de bañ na de am na ñuy sànni ñooñu tee ñoo li ñuy def général Malika Fils de Balla na ko Fils de Balla na ko jël moom ko daan rëy na laa ilaha illallah lamba waneeti na boppam géej way waneeti na boppam oh général am na lu ko bet général am na lu ko bet général am na lu ko benn am askan lamb ñëpp dañoo jàppoon ne Fils de Balla général man man bëri naa ak général 37 minutes dama kaa bëriloo ba muy raama daan ko parcelle 2013 mais comme Sénégal dañoo war a xam ne Fils de Balla dafa bokk ci lambo te Fils de Balla 130 kilos lay po 120 kilos day bëre moo ëpp général bëre barki Seydina Mohamed mais loolu moo feeñ ci lamb ji day Matar Ndiaye Matar félicitation merci beaucoup Babacar dama laa gis nga ñëw ci stade bi ak xel mu dal amoo benn yoon stress lan moo waral loolu. yàlla xam naa yonent bi wóor na Serigne Babacar si damaa gëmoon ni général tey Fils de Balla da koy daan dama koy wax ma am Daouda Soumaré ma ko waxee mu reetaan ne ma yow sax yow sax ñu nga baral gëmoo ko xëy na bu njëkk ba bu ñu bëree woon booba Fils de Balla parewul mais combat bi daf ci pare ma xam ne dafa pare mbër mi rassuré ma coach am Lamine Golor rassuré ma wala d de Balla dama ne ko soo defee li mbëri def gëm sa bopp di entraîné rey sa bopp bañ a xaar ba am combat di rek doog a entraîné mën naa am lu ne ci làmb billaay am na jëmm ji am na taay bi am na bëri bi am na fit bi barki sëñ Babacar Si dum yaakaar maa ngi sant yàlla bu baax man Fils de Balla damay ànd ak moom dëkk Géejuwaay di dégg lu ne tudd dum sal dum sal bu sëriñ Babacar Si laa tudd ñëpp ñëpp ñëpp xoolal daan ma ay dum ay ay Fils daan ay booy bi la àndal barki Serigne Babacar Sy laa la waxtaan yeneen yeneen combat di am na Balla Gaye du yàgg mu bëre Matar Ndiaye léegi foo jëm donc fu jëm franc laa jëli non dugg naa ci mi ngi def ay jaloore ci franc laa jëm man Matar Ndiaye maa la ko wax franc laa jëm waaw la kenn xamul Balde tey la 24 octobre Assane Ndiaye andi lamb ju général Malika Fils de Balla wax naa leen ko Fils de Balla dafa liggéey ci combat bi te bi mu summee ko boo ko xoolee xam ne daal liggéey te gëm na ne day daan te xale la boo xoolee lama ma waxoon bañu bañ mu bëri ci koom loolu la def moo jëli général ñu bëre mu senn ko sànni ko wër ko yaa ngi dégg confiance def fa bës ko bëre ak moom ba ni ko daane mu jël bu leer nañ kon général Malika di courage Fils de Balla félicitations lamb noonu la lamb moom lu la waay mën a wax da koy teg ci yoon félicitations maa lay bëgg Doum Sall félicitations di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di wax jib seen borom le 28 octobre happy birthday borom le 8 novembre happy birthday to you tey moo a solal tey li ma sol yëpp jib seen la borom peter seen waa géejo way amati nañ ndam tey ah géejo way géejo way géejo way doy na waar dimanche bële géejawaay tayaat géejawaay balde ba beneen yoon